sëriñ waaw di nuyu euh, kilifa diine yi kër kilifa diine yëpp ziar leen di ziar kilifa aada yi waaw di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulah mbay science bi nga xam ne moom la Pape Diouf woote waa xam nga euh, war sa jaaxal kenn dexe naa. Ah, parce que euh, ak musique bi fu mu féete nii ak li mu fu mu jaxasoo ku gis kii fee gis kii fee xel day ñaaw. waa xam nga ñun nag suñu borom dañoo bindee noo xam ni ñun dañoo jaboot. te ñëpp la bokk jaboote. ñun amuñu xaar ma yàlla fenn amuñu fenn sens interdit. Mhm. waa ñun. Mhm. Euh, tey damay wax rek ci bésu Pape. Mhm. parce que Pape moo ma yëkkati. Mhm. Pape Diouf mhm. moom ma yëkkati. donc nag di tax ma ñëw. mooy que euh, moom xamul sax damay ñëw ci euh, séance d'écoute bi. Ah, walaay lazim surprise day lay doon ci moom xam naa ne. ah mais avant may juge Paris. di ñëw dañu wax maak moom. waa Pape ci boppam jox ma cër boo xam ne euh, ku doyul dara dootuloo doy. ndax daf ma ne grand man ka mu ne ma <clears throat> man di bés boobu le 23 boobu yaay suma invité d'honneur donc te euh, su ma sañoon loo jàppoon rek soo ko mënee bàyyi bàyyi ko rek ndax sama jëmm ji ndax bés boobu ñor na ma trop te dama la ca bëgg a honoré te euh, sama rêve ñaar la woon woyandoog ñaari woykat Youssou Ndour Mapenda Seck donc euh, ne ma nag grand ah ñor na ma de wallaahi azim am na sax moo dem nag Espagne la waroon dem ci gàttal Espagne waaw le vingt quatre vingt cinq mais ba ñu waxee loolu euh, ndeysaan euh, go fexe naa daal ba lijjanti ba renvoyé. le 24 boobu ak le cinq bi. Pape Diouf la moo ko may. waaw mooy dara yaram ak it tegginam ak it nangu kilifaam ak it mën a joxe cër te xam ne cër moom yàllaa koy joxe rek waaw fekk yaa ngi koy joxe suñu borom di la ko jox waaw donc ak am diine am lislaam nag am respect. man daf maa bëgg ba wallaahi azim euh, lii lépp du tey yàgg na. barki yonent Yàlla Muhammad yàgg na Pape Diouf li muy wax ak man ba avant ma ñëw rek jabaram bébé baas ñoo toogandoo euh, ak buur géwél euh, bébé <laughs> man daal grand xam naa ni ni la xam naa ni daal vraiment man sama bopp sax damaa dem ba miin say way bébé baas mhm. donc xam nga loolu cër la rek ndax waykat yaa ngi fi. pour quoi mu choisir Youssou Ndour Mapenda mais moom moo ko xam. <laughs> donc ñu seetaan la en parlant de kilifteef. Mapenda ko xam-xam ne il a toujours été poli. Hmm. topp ay magam ci yàlla. wax hmm. dëgg yàlla kenn mës ko dégg ci dara. tey njaboot gi am ay Moussa Sowaan Mapenda bi wax wax bu wax bu am solo. Hmm. Eh, yeddaat ak njabootam. delloowaat leen ci ñu mel nañu meloon. Mapenda Seck Ousmane Keba Thion Mor Dior kenn mosu dégg ci dara mag day jiitu rakk topp. xam nga ñun li ma li ma comme ni ma ko waxee rek ñun dañoo masam kilifa ñun suñu mag yi nga xam ne mooy Thion Balago tey paix à son na ko yàlla yërëm te xeeñu te yàlla xare ko àjjanay firdawsi moom ñam fa fekk ak fa fekk ñëpp di jaay séddu lu jot alayhi salaatu wa salaam dund na suñu borom jëlee. ñun masuñoo tegg ay waxam kenn masuñoo atteeg moom walaay lazim te masuñoo toog mukk ci rajo wala ci journal wala fu mu mën a doon wax ci lenn ci suñu mag lu anormal déedéet ñun xamuñu loolu. tey soo gis xale yi di demee ba xale yi léegi mais xam nga euh, génération day am rek. Mm-hmm. mais ñun euh, dara duñu changé te dara mënuñoo changer donc xale yi nañ dolli seen xel rek te xam ni euh, yëf bi du dara ñoom ñëpp samay doom ak doom yi ñëpp a ci am ku ci nekk da ngaa judd peut-être fekk sa kër baay di woy wala sa kër ndey di woy nga judd fekk succès wala nga fekk alal wala nga fekk ay woy ci sa biir kër ndey wala sa kër sa biir kër baay kon dara waru leen jaaxal. woo nga ma non man barki laaj laa ñëw man wootee gu ma kenn. wootoo kenn ba fa toog si télé di wax. non woowa gu ma kenn. woowa gu ma. mbay. woowa gu ma. damaa ñëw amagu jot. ñu gis ne que da nga ni tey nga waroon dellu. est-ce que le 19 kon dina la fekk est que doo nga gàntal keneen est-ce loolu tamit jaadu na. 19 ban. da nga ni xaw ma. le 24 waaw le da nga da nga waroon ñibbi da nga waroon dem Espagne tey. non pas dem Espagne non non pas compris. Ah. dama Pape Diop bi ñu waxee France Paris mu wax ma xew bi la vingt trois décembre dama ah, ñëwagul donc ma ne le vingt quatre ak le vingt cinq boobu man dama amoon engagement bu ma waroon a honoré en Espagne donc bésam boobu waru moon fekk Paris mais cër ba ma jox ak la ma ca sóor lijjanti naa ba reporter sama voyage Espagne boobu loolu laa la wax. est-ce bokk na sa yéene tey balaa ngay dellu. comme ni nga ko waxee. dajale njaboot gi comme tout bon magu géwél. nañu ko daan defee ñu xam ne aw askan. wala famille waxante ak meroo xaju ci. léegi. man xam nga lu ma bëggoon. fi mu ne nii Pape Diouf ma indi. non est-ce que bokk na ci sa yéene. <laughs> yéene laa wax. waaw non non loolu mooy géej am na ndox. loolu mooy géej am na ndox. waaw mais waaw voyage bi nga absenté bu lu yàgg xam nga ñëwoo da nga bàyyi wooy mbay. Uh-huh. man sama bàyyi wooy lu may def. ah mais da fan si di la xaar ah, war a demaat. waaw mais uh-huh. xam nga man. Ah, Sénégal nag ñoo ko soxla Sénégal ñoo ko soxla. waaw mbay walaay maa leen gën a soxla yàlla xam na ko mais dafa fekk ni ndeysaan euh, euh, dafa am moment yoo xam ne mm-hmm. c'est des moments de recul. c' est des moments de réflexion. Mhm. esam mhm. la man bi may dem tukki boobu xalaatu moon sax dinaa fa yàgg nii yàlla xam na ko. Mhm. mais aussi nañ bàyyi programme yàlla. man sama dem yàlla la neex programme suñu borom la. da wax bi donc voyage bi daal dem nañ ci jàmm euh, yàlla dogal na yemuy dogal yëpp dégg naa lépp nag dégg naa lu ne. waxal nañ ma lu ne. <laughs> <laughs> waaye da ngay faj ji lu ne dégg nañ ma ne waxal nañ ma lu ne. <laughs> waaye man baal naa ñëpp. nga feebar walaay lazim nga de. nga feebar man de ah man de maa ngi jàkkaarloo. Ah, ma la nga lu wokk ma man de lu wokkul dërëm mbokk ba ana bant. Ah. lay lay la laa ah. ana bant ku yor bant. ah maa ngi nii waaw man taalibu sëñ Mbacke Madina. mais li na njaboot gi. njaboot gi waaye allah loolu moom. bu soobee suñu borom. mosu fa dugg bi depuis lors. am nañu yéene yi toog ak bu ñu waxtaan. yii yëpp ay yëf rek. waaye yàlla mooy borom jaam ñi. incha allah. ah naa ci yéen de. maa ngi yegg sama rakk